أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di ziyaara ci weer wu màgg wi nu nekk muy shahru ramadan al mubarak ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala yal nanu yàlla may ñu tàmbalee ko ci bismillahi rrahmani rrahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yal nanu yàlla nangul sunu koor ak sunu julli ak sunuy naafila yal nañu yàlla jàppale ba ñu woor weer wi ba mu jeex comme moom yàlla tabaraka wa taala ni mu ko bëggee comme ni ngeen ko xamee su weeru koor ñëwee danañu dajaloo di fàttalante sunu biir téere yàlla wi tabaraka wa taala ngir góorgóorlu ci pour am tiyaaba ndax weeru koor weeru quraan la ndax jàng ngeen yàlla mu ne sahru ramadan allazi unzila fihi alquran ci weeru koor ci la yàlla wàcc alquran comme fekkoon nañu ñu ciy jàngalante ba tolloon ci suratul baqara fii ci barab bi ñu ngi fi yemoon ci aaya 62 muy tafsir bu nga xam ne mu ngi am fii ci jàkka ji su ko defee wala ñuy commencé waat dañuy tàmbale ci aaya yooyu rek jëm suuf insha allah aaya bi ñuy njëkk a jël tey muy aaya 62 lim ñuy jàngal mooy ñaari mbir bi ci njëkk mooy al ibratu bil xaqaiqi la bil alfaazi al ibra mooy jël leçon mooy waaru mooy jële xam-xam ci vérité yi am ci dëgg yi am mais du ci moo yi ñu bari tey ay baat dafa leen a tere jaamu yàlla ay baat ay tur te tur amul importance te dinañ xam léegi ci aaya yi aaya bii lu tax tur amul importance jëf moo am importance ida qaala falmunaafiq ida qaala huwa mumin aw muslim walam yumin bi qalbihi walam yuslim bi jawaarihi la tugni an nasabatu anhu shay'a naafiq su waxee ne man dama gëm yàlla wala mu ne man jullit laa te xolam gëmul yàlla jébbaluwul ci yàlla ay cëram jébbaluwul loolu mu woote ne dama koo gëm du ko jëriñ mbiram tey ñaata nit ngay dégg ñu naa la man jullit laa ñaata nit di nga ci gis koo xam ne weeru kooru daaw la gëj a julli weeru koor daaw la gëj a dugg ci jàkk kooku bu la ne man jullit laa te gëmul yàlla ngëm nekkul ci xolam ay cëram jébbulu wuñu ci yàlla kooku dëgg-dëgg xam ngeen ne ngëmam googu moo ko wax rek waaye gëmul dara wal yahud wa nasaara wa sabi wa kullu zuy diinin mu ne ñooñu ñu naan yahud wala ñooñu ñu naan nasaraan wala ñooñu ñu naan sabi te dinañ xam ñooñu ñooy ñan ñooñu ne sabi di askanele seen bopp ne ñoom dañoo bokk ci diine te diine ya ñu bokk yàlla man suuxal ko dëppi seeni jëf bu dee dañ koy askanele diine ji ba léegi amatul njëriñ yàlla tabaraka wa taala du ko nangu la tanfa wa innama yanfa al imaanu sahih wal amalu salih lii jëriñ julli dëgg mooy ngëm yàlla gu wér ak jëf ju baax ñaareel bi li ñuy jëlee ci aaya bi mooy ahlul imaani sahih wal istiqama ala shar'i ala shar'i llahi alhaq mubsirun bi nafyi alxawf anhum wal hazn nee na ñooñu ngëm yàlla ñi ngëm yàlla tabaraka wa taala ngëm gu wér ñi jub ci sharia yàlla tabaraka wa taala dañ leen di bégal ne ëllëg yow mal xiyaam ñoom duñu tiit duñu jàq aaya bi moo ñu ko wax is nit saa yu tiitaange dañee ci moom rek lan moo fay nekk mooy kóolutee soo tiitee amatoo kóolutee su fekkee da nga nekk en sécurité yow dootoo ragal dara loola tax yàlla tabaraka wa taala wax ñi ne ñoom gëm gi ñu gëm yàlla dañ ciy jële kontaante dañ ciy jële mbégte waaye dañ ciy jëxe texe ëllëg yowmal qiyaam borom bi tabaraka wa taala mu ne baada aoudu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون borom bi ne inna allazina gaa yi nga xam ne amanu dañoo gëm yàlla ñii ñooy ñan mu ne hum al muslimun ñii ñooy julliti inna allazina amanu ñi gëm yàlla yara baadul mufassirina lenn ci ñuy firi alquran di ko jàngale dañuy wax ne billazina amanu almunafiquna ñu ne ñuy nafiqi la waaye wa saxiix li wér mooy ma zakarnaahu mooy li ñuy wax léegi mooy ñii allazina amanu mu ne hum almuslimun mooy ñi gëm yàlla jébbulu nekk ay jullit amanu billahi gëm nañu yàlla ñoom wahdahu yàlla rek gëmuñu keneen yàlla rek keneen bokk ci waxdahu moom kenn moom kot moom dong wa amanu bi rusulihi ñu gëm yonentam yi wattabaauhu ñu topp ko gëm nañu yàlla kese gëm yonenti yàlla bi kese topp ko ñii ñoom la yàlla day wax ne inna allazina amanu ñi gëm yàlla mu ne walladina haadu ak ñi nga xam ne ay yahud lañ ay juif lañ yahud allazina haadu hum al yahud mooy juif yi lu tax ñu tuddee leen yahud li qawlihim inna hudna mooy wax ji ñu wax ne ñun kat topp nañ la rajaana dellu si nañ ci yow wax jooju ñu waxoon Muusa ne ko ñun kat delluwaat nañ ci yàlla topp nañ yàlla ñu tuddee seen bopp benn kenn ci doomu yaqub yi ku tuddoon yahuza ñu tuddee ko seen bopp moo tax ñu tuddee leen yahud soo ne yahud rek ñoom ñëpp doomu yaqub boobu tuddoon yahuza moom la ñu askanale seen bopp moo tax ñu tuddee leen yahud ñan ñoo ci tegu mooy wan nasaara ak nasaraan yi ñoom lañu naan chrétien nasaraan an nasaara assalibiyun mooy ñoom Christ waa kër Christ tuddee nañ leen baat boobu imma li annahum yatanasarun benn ñoom dañuy dimbalante aw li nuzuli maryam bi waladiha isa qariyatan nasira wala muy la isa àndoon ak yaayam ñu wàcc dëkk bu tudd nasira loolu ñaari mbir yooyu tax na ñu tuddee leen nasara benn muy la ñuy dimbalante seen biir ñaar mooy li maryam ànd ak doomam jooju tudd isa ñu wàcc dëkk boobu tudd nasira moo tax ñu tuddee leen baat bi muy nasaara ñeenteelu kuréel bi mooy wasaabiin ñi ñooy ñan ñi boroom xam-xam bu ngeen demee ci tafsiru ibnu kasir boroom xam-xam yi wax nañ ci ñoom wax yu bare bare bare bare bare bari mooy ñi ñooy ñan ñi ñi ne ñii ñooy ñi doon jaamu malaaka yi eh ñoo leen fii yéen ñooñu ci ginnaaw yëpp ñoo leen dee laa xew bu ngeen demee ci tafsir ibnu kasir di ngeen fa fekk ñu ne ñu wax ci wax ju bari ñi ne ñii ñooy doon ñi doon jaamu malaaka yi ñi ne ñii dañ doon jaamu biddéew yi wax yu bari ñun nag biñ tànn mooy bii ñuy wax ñun mooy assaabiun ummatun benn xeet lañ kaanat bil mawsul ñu ngi woon benn dëkk tudd mawsul ñoom yaquluuna laa ilaha illa allah dañoo gëmoon yàlla dañ daan wax laa ilaha illa allah mais amuñu woon yonent bu yàlla yónni ci ñoom boroom xam-xam yi nee nañ wa yaqra'uuna zabuur dañ daan jàng téere boobu tudd zabuur waaye ñoom laysu yahudan duñu yahud wala nasaara duñu nasaara bokkuñ ci benn kuréel ci ñaari kuréel yee duñu ay yahud duñu ay nasaara te boobu lislaam ñëwagul woon looloo tax ñi wax ne ñii dañ doon jaamu biddéew wax ji ñu wax ne ñoom dañ doon wax laa ilaha illallah day dàq loolu ndax ko laa ilaha illallah dootoo jaamu biddéew ñi wax ne tamit ñoom dañ doon jaamu malaaka yi wax ji ñu wax ne ñoom dañ doon wax laa ilaha illallah day wane ne ñoom daaw ñoon jaamu malaayika kon kon ñoom dañ doon jàng zabur waaye duñu ay yahud duñu ay nasaara waahiduhum sabi kenn ñu ko doon wax sabi lan mooy sabi sabi mooy bàyyi nga sa diiney maam dugg ci diine bu bees loolu la waa Màkka daan wax sahaaba bu gëm yonent bi rek ñu ne ko yow de jéng nga ku jéng loolu la baat bi tekki assabi mooy ki jéng walisa kanat quraish taquluna liman qala la ilaha illa allah sabi ay mail gis nga waa quraish dañ daan wax ku wax la ilaha illa ñu ne yow de jéng nga ndeysaan yow de lan nga jéng ci say diine yi bàyyi dem ci beneen diine bu bees dem nga ci diine bu bees kon aaye bi nekk sunu kanam mi ngi wax ñeenti kuréel yi ku ci gëm yàlla gëm yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam say jëf yàlla dina ko nangu ëllëg yowmal qiyaam yàlla dina la fay te doo tiit doo am njàqare di nga dugg aljanna borom bi ne inna allazina gaa ñi nga xam ne aamanu gëm nañ wallazina ak ñi nga xam ne haadu ay yahud lañ ci jamono ji yahud daganoon ndax instant bi yahud daganatul valable ci nekk yahud lan laa jublu ci nekk yahud nekk ci diine yahud baati juif bi xeet bi loolu diine ji moom valable wa nasara ak nekk nasaraan daga wasaabiin daganatul la nekk man amana billahi ku ci gëm yàlla lan mooy ngëm nag jàngeen arkaanul iman ak sitta suñ ne al iman billah gëm yàlla mooy nga gëm juróom benn ponk yi da ngay gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm alaaxira gëm dogal bi ci neex ak bi naqari loolu mooy iman loolu mooy arkaanu iman ba man amana billahi ku ci gëm yàlla loolu lay ëmb beneen bi mooy bu fekkee al imaanu billah kese yàlla kese kese kese suñuy suñuy tas al arkaanul iman da ngay gis ne al imaanu billah rek mën nga ca yend yàlla dafa am nuñ koy gëmee nekkul nga gëmee yàlla comme ni mu la neexee yàlla walla waaw am nañu gëm ne ñoom yàlla lañ sax man yàlla laa walla am nañu gëm ne loo gis yàlla la waaye boo yaatalee di nga gis sax ci réew mi ay nit yoo xam ne dañu ne yàlla am na doom yàlla nag nuñ koy gëmee moom wax na ko benn saar bu ndaw boo xam ne ñëpp mokkal nañ ci ci biir jàkk yàlla nee na qul huwa allahu allahu lam yalid wa lam yakun lahu ci tënk ngëm yàllaa ngo yàlla kenn la yéeféer yi ñoo ne woon yonent bi yow yàlla gi ngi ñu wax nañ ko gëm comme yow fekk nga ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñetti di kaaba nga jël yépp ne benn baaxu ci ajaaltal aliha ilahan wahid da ngay def yàlla yi benn yàlla inna haza la shay'un ujab mbir mu yéeme yàlla nga ni benn baaxu ci kenn moo baax yàlla boobu nga yiwoo pour ñu gëm ko moom dafay sori ba bu ñu yuuxu ko wala dafa jege ñu déyanteeg moom wala nga melal nu mel ñu ñam ko wala ñu xeeñ ko wala ñu laal ko qul wa allahu daal di wàcc ne yàlla kenn la qul waxal yow muhammad huwa moom allahu yàlla ahadun kenn la yàlla kenn la yow julit boo gëmee ne yàlla kenn la kii gëm ne moom yàlla ndax yéen ñaar yéen a bokk pas-pas différence ñëw na ci pas-pas yi loolu moo tax jullit ñi wuuteeg ñi dul jullit ay pas-pas waaye ci biir jullit yi sax dañoo wuute pas-pas tey ndax ki gëm ne kilifa diineem yàlla la te yàlla ne man kenn la yow jullit bi gëm ne yàlla kenn la wuute nga yi wala ki gëm ne lépp loo gis yàlla la man yàlla laa yow yàlla nga ñëpp yàlla lañ yow nga gëm ne yàlla kenn la wute nga ak moom kon yàlla kenn la ahad yàlla kenn la kenn kenn la du ñaar du ñett du ñeent allahu samad yàlla la ñuy jublu mbir yi asamad mooy koo xam ne mbir yëpp moom dong moo ci mun dara ndax yéen gis ngeen ci kaw suuf koo xam ne lépp moom mun rek moo ci mun dara gis ngeen ko ah wax leen ma kan la koo xam ni lépp mën na ko yàlla rek mooy kooku moom yàlla lam yelit wala am am na am na am na ku mu jur mos ngeen gis doomu yàlla
lam yeli walam yuulat yàlla kenn juru ko yàlla amul papa amul yaay walam yakun lahu kufaan yàlla amul dendandoo amul nawle amul moroom keroog ba jinne yi déggee ñu ne yàlla am na doom jinne yi biñ ko déggee dañoo yuuxu ba seen gémmiñ yi di génne ay xali safara naan wa anna zananna an lan taqula al insu wal jinnu ala allahi kasiba ñun yaakaaroon nañ ne nit ak jinne duñu fenal yàlla lan la ñu fenal yàlla dañu ne yàlla am na doom te yàlla nee na mën a awma doom ndax balaa ngay am doom lan nga war a njëkk a am nga am soxna yàlla nee na awma soxna mattaxasa saahibatan yàlla nee na man awma jabar awma doom mattaxasa saahiba waaye musuma am jabar wala walada nii doom benn misaal laa leen di jox yéen ñëpp buñ newoon tey sëñ Mansour da ngay ngénte géejawaay te amu fa jabar luñ ko tuumaal buñ ko waxoon sëriñ kii nu mu tuddati kii nu mu tudd xalifa bu bees bi Moxtaar luñ ko wax ak nan daal buñ ko waxoon sunu papa ñun ñu toog fii kenn ku nekk ñu ñëw fekk la ñu ne la yow looy def fii nga ne ah damay tafsir ñu ne demoo demoo ngénte ba nga ni ban ngénte ah yu ko sa papa day ngénte fële ci caaro yi te yow sa papa xam nga ne benn jabar la am luñ la wax sa papa daal léegi nag loolu ñu bëgg ko wax yàlla biñ ko waxee wala nit ñi jinne yi ñoom buñ ko déggee dañoo weeti pourtant bi ko asamaan déggee dafa weeti de asamaan yàlla mu ne yakaadu samawaatu yatafattar na asamaan mi ngi xottee ñu ne ko montagne yi nag mu ne wata xirul jibaal montagne yaa ngi màbb ñu ne ko suuf nag mu ne wa tantaxul ard suuf di xar ñu ne yàlla lu tax mu ne an daaw lirrahmani walada ndax nee nañ yàlla am na doom te wa ma yambagi lirrahmani an yattaxisa walada lu tax il kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani ñëpp ay jaami yàlla lañ ñëpp in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda yàlla jomb na am doom ku moom lépp looy doy doom moom lépp lu may doy doom yàlla mu ne man amana billahi yàlla wal yawmil axir mu gëm alaxira gis nga Euh, li tax li ëpp ci alquran wala ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñaari baat yi ñooy ànd mooy al imaanu billah wal imaanu bil yawmil axir lan moo koy waral ñaari mbir yi di ànd bis bu nekk mooy al imaanu billahi wal yawmil axir parce que dafa nekk ñaar yi gën a difficile ci arkaanul iman est-ce que xam ngeen ne nit ñi gëm nañ yàlla mais àllaaxira lañ gëm moo tax yonent bi saa salaam bokk na ci ay waxam chaque jour day wax man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yusi jaara man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim gis nga ku gëm yàlla gëm àllaaxira ku gëm yàlla gëm àllaaxira ku gëm yàlla gëm àllaaxira lu tax lu tax gëm yàlla gëm àllaaxira parce que nit ñi ñi ci ëpp gëmuñu àllaaxira lan mooy ñàkk gëm alaxira mooy toog ñàkk ko préparé alaxira ku ko gëm da nga koy waajal xam nga ne da nga fay dem loolu moo tax li ëpp ci aaya alxuraan yi buñ ne al imaanu billahi rek ñu teg ci wal yowmil axir gëm bisu alaxira lan mooy yowmul axir mooy bis bu mucc bis bu mucc dafa am bis boo xam ne bu ñu xëyee beneen bis di ñëw ginnaawam mooy yowmul aaxir bis bu mujj moom yowmal aaxir muy bis bu mujj am na tur yu bare bari am na yowmal qiyaam bisu taxawaay yowmu taxaabun bis bu ñuy ñëkkal kanam yi yowman yaj'alul wildaanu shiiba bis bi nga xam ne xale day judd bi jaaw ah am na tur yu bare bare bari moom yowmal qiyaamati bisu fay yowmul xisaab bisu réglé bisu atte yàlla ne képp ku gëm yàlla gëm àllaaxira yemoo ci ñoo ñaar yooyu de waa amila saalihan mu taxaw jëf jëf ju baax waa amila saalihan gëm yàlla gëm àllaaxira lan lay jural nit mooy muy def lu baax léegi nag suñ problème mooy da ngay gis koo xam ne du def lu baax nga wax mu ne la gëm naa yàlla nga gis koo xam ne doo ko gis jamais muy julli nga wax mu ne la gëm naa yàlla pourtant gëm naa yàlla gëm naa àllaaxira mais lu tax du jëf jëf lu baax lan la te ku gëm yàlla gëm àllaaxira ñaar yooyu lan la la war a jural yow mooy wa amila saalihan muy jëf jëf ju baax yemul sax ci jëf rek wa amila mais il faut saalihan jëf ju baax al amalu saalih jëf joo xam ne yàllaa ko santaane yonent jàngale ni ñu koy defee loolu mooy jëf ju baax jëf pour mu baax fokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane ni ñu koy defee jëf bu baax loolu mooy jëf bu baax mu ne ñooñu def loolu falahum am nañ ajruhum seen fay inda rabbihim seen boroom am nañ ajruhum seen fay inda rabbihim seen boroom ñi gëm yàlla gëm àllaaxira jëf jëf ju baax yàlla tabaaraka wa taala moo leen di fay falahum am nañ ajruhum seen fay inda rabbihim ci seen boroom yàlla moo leen di fay te ñooñu bis bu leen yàlla di fay wala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahzanun duñu jàq ay mbir gi nëbb fii yan mbir moo fi nekk mooy ku gëm yàlla gëm alaaxira jëf ju baax yàlla moo lay fay assurance boobu ngay njëkk a am ku gëm yàlla gëm alaaxira def jëf ju baax kan moo lay fay sàmba du la fay demba du la fay kan moo lay fay falahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen di fay beneen bi mooy ñoom wala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahzanuna duñu jàq duñu tiit ci li ñu bàyyi ci ginnaaw wala hum yahzanun duñu jàq biir bàmmeel
kon mbokk yi al imaanu saxiix ngëm bu wér
laa yatimmu li ahadin illa bil imaani bin nabiyi lxaatim ngëm gu wér dëgg
du mën a nekk lu dul bi nga gëmee yàlla nga teg ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal amalu saalix leex jëf ju baax moom laa yakunu illa bima jaa bihi bin nabiyi lxaatim
boo bëggee nga jëf-jëf ju baax da ngay jëf lu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo jëfee li muhammad indi nga jëf-jëf ju baax gis nga tey ay nit a ngi sonn ci ay guddi ay nit a ngi sonn ci ay bëccëg ay nit a ngi sonn ci ay waxtu fekk loolu ñuy def ñoom dañoo jàpp ne lu baax la fekk ci yàlla du ñu fayeeku parce que loolu ñuy def yonent yàlla muhammad jàngalewu ko mara ñu ne jëf ju baax wal amalu saalix laa yakunu illa bima jaa bihi annabiyi alxaatim fi kitaabihi wa ma awxaa ilayhi jëf ju baax du mën a nekk lu dul lu yonent bi indi ci téere yàlla bi ne mi ngi nii ak li ko yàlla wax yu mu ñëw wax ko jullit yi ne na ngeen ko jëfe ku jëf loolu jëf nga jëf ju baax waaye ku jekki-jekki rek daan ne sëñ bi mooy première weeru koor nañ màggal guddi gi du ñu nelaw ñun ñëpp ñu ñëw ci jàkka ji di yuuxu di way di jàng alxuraan di naafi la dañoo xam nga luñ fi luñ ciy jële ay tànk yu metti ak biddinti duñu am benn yàlla pourtant li ñu def ci suñu xel lu baax la wala lu baaxul la baax na mais duñu am tiyaaba kenn duñu fay ndax dañoo sos lu bees ci diine ji tudde ko bidaa ndax première bis ci weeru koor amul ci lislaam fu ñu koy màggalee tey nag loolu daa bëri ci diine ji ay bis yu ñuy màggal ay guddi yu ñuy màggal ay waxtu yu ñuy màggal ay ay ay ay weer léeg-léeg sax nga dégg saan ndeysaan ay nit di julli julli yoo xam ne amul ci lislaam màggal ay guddi yoo xam ne ay julli yoo xam ne amul ci lislaam fay faat julli fay faat ban hadis la fay faat ñu ngi koy julli ci weer wi ci dernier vendredi ci weeru koor ñu dajaloo ci ay bayal luwe ay baas benn ilimaan ñëw di julli ak nit ñi ñaari ràkk ku julli rek ñu ne yow li nga julli wul woon yëpp bi nga nekkee bandi daa woo julli ñaari ràkk yi fay na loolu ban hadis la ak ñaari ràkk yi ñuy julli tilleen tilleen tilleen ñaari ràkk yi ñu fay julli ban hadis la ah am na hadis foofa demee da ngay sonal sa bopp rek doo am tiyaaba parce que loolu nga def amul ci sunna mais tey ku bàyyi woon ba yoor yoor nga julli ñaar raak da ngay am tiyaaba loolu doo am tiyaaba lu tax da ngay am tiyaaba parce que yonent yàlla Muhammad moo la ko jàngal ku bàyyi ba guddi weeru koor nga jóg di naafila da ngay am tiyaaba lu doo am tiyaaba ah da ngay am tiyaaba lu tax yonent yàlla Muhammad moo la jàngal da nga war a naafila ci weeru koor ku dugg si jàkk julli ñaar raak da nga am tiyaaba doo am tiyaaba lu tax parce que yonent yàlla Muhammad moo ne man daxala fil masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatayni tahiyatan lil masjid aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam soo defee li yonent bi indi mu nekk ci téere yàlla bi wala mu nekk ci sunnaam moom yonent da ngay am tiyaaba mais boo defee lu sàmba indi demba indi loo ci jëlal dul yaram bu métti loolu mooy amalu saalih amalu saalih jëf ju baax mooy lu yàlla wax yonent bi indi ko jàngale ko soo ko defee rek am tiyaaba loolu mooy amalu saalih beneen jëf nag bu baaxul mooy jëf boo xam ne nekkul ci alquran nekkul ci sunna yonent jàngale ko kenn xamul fu mu jógee benn waaye mooy ñëw rek daan ne ah pourtant affaire boobu rafet na de li tax Sénégal garaaw mooy da ngay jékki-jékki ñu ñu ne nañ organiser touru famille ñu organiser touru famille rek nga dégg rek jékki-jékki kenn pourtant suñ doon suñ doon indi suñuy kurus ñun ñëpp di def téeméeri astafirullah téeméeri subhanallah téeméeri alhamdulillah té rek ñu commencé ko gis nga sos nañ bidaa loolu mooy dañuy dem di sos di dem di sos di sos di dem bu ñuy ñëwee indi lii ñee ñëw indi lii léegi paa yooyu dajaloo woon di def loolu buñ demee seen doom yi ne noonu nañ ci boole juróomi ràkk xam nga fu mu jëm ci rendi ay nag commencé caaxaan waaw moo tax bidaa baaxul kooku mooy amalu saalih mooy loo xam ne dafa nekk ci téere yàlla yonent bi moo ko indi jaa bihi nabi fi kitaabihi yonent bi moo ko indi ci téere wa ma awha ilayhi wala yàlla wax yu ko ko is bi sariatihi nasaxa allahu sarai asarai sair asarai ci charia yonent yàlla muhammad ci la yàlla effacé bépp charia am na loo xamante ne mënoon nga ko def nga am tiyaaba ñu ne yow li tax nga def nga ni Ibrahima doon na ko def Moussa defoon na ko Isa def na ko waaye gis na yonent bi saa salaam ba mu gisee sax saaba bi di jàng bible keroog dafa mer ba bëri xonq keroog dañoo woote te julli jotul yonent bi xutba seen kanam ne leen wallahi alazim Moussa bu dekki waatoon tey adduna bi du yaatu ci moom lu dul mu topp sama ginnaaw sama taalibe lay nekk kon ab jullit day moytandiku di jël loo xam ne yonent yàlla Muhammad indiwu ko woon te li yonent bi indi kenn mënu koo def ba ba mu jeex yéen saa ngi dégg benn waay mu ne man man sunni laa deet waxal damay jéemal damay jéem di dund sunna sunna dafa goo lépp di yow li nga ci defagum mooy am nga sikkim booy julli da ngay xabdu wala am nga tubéy bu gaat wala yaa ngi socc baax na de am yaa ngi góor góorlu am yooyu def mais defal goo lépp waxal maa ngi jéem di dund su di ko jéem yonent bi indi maa ngi koy jéem a dund kenn mënul dund lépp ba mu jeex am na ko mën da nga gis benn waay ñu ne kii def na sunna lépp war al Cheikh Nasir ad Din al Albani ndeysaan dafa mos a toog nii rek benn waay ñëw rek ne ko sëriñ bi tey jii de ci àddina bi yaakaar nan ne yow yaa fi raw ci hadis rek sëriñ bi daal ne alhamdulilahi rabbil alamin am na hadis boo xamante ne dunduma ko woon maa nga doon ñaan yàlla pour jëm ko dund mais yàlla tey may na ma occasion mu daal di jël suuf rek xëpp waa ji daal ne yonent bi nee na ku ñëw di leen tagg xëpp leen suuf ci kanam gi wala sunna boobu keroog la leen la ko yàlla may occasion pour mu dund ko est-ce que yow sunna boobu ñeme nga ko dund tey est-ce que yow ñeme nga ko est-ce que man ñeme naa ko est-ce que ah yonent bi nee na booy julli am benn waay bu bëgg a jaar sa kanam sa kanam ne ko lan ne ko nii déedéet ne ko nii sa loxo mu xam ne yaa ngi julli mu ne bu insisté lu mu wax nga baare ko mu insisté mu ne pes ko parce que seytaane la àndal yan moo ñemee dund sunna boobu fi partout gis ngeen kon su ko defee ñu bàyyi xel baax ne charia bi yonent bi indi moo effacé bépp charia li Ibrahima indi woon dootul valable tey fii ci ñun li Moussa indi woon valabalutul ci ñun li Isa indi woon valabalutul ci ñun ñun lenn dong moo valable tey ci ñun ban loi mooy islam yonent yàlla Muhammad loolu la indi mu ngoog nit mënul laabal bakkanam nit mënul set nit mënul dugg aljanna ëllëg nit mënul def jëf ju baax lu dul mu dëppoog li yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam indi ndax loolu moom mooy texe àdduna loolu moom mooy texe allaaxira borom bi tabaraka wa taala mu ne wa is fàttalikul axas naa ba ma jëlee ma jàpp mi saaxakum seen digg al ahd al muakkad bil yamin mooy digg bi nga xam ne man yàlla jàpp naa ko digg boo xam ne signature la contrat pacte bu ma signé woon mi saax misaaq boobu lan la lan laa leen waxoon yéen waa banu israil li ma waxoon ak seeni maam démb pour yéen ngeen mën cee jël ak waar ngeen fàttaliku ci ay xew-xew yu jëmoon yu xewoon yu passé yàlla ne la woon leen jël leen tawraat jël leen téere bi ngeen jëfe ko moo tax mu ne wa is fàttalikul axas naa ba ma jàppee misaaqakum seen dig seen pat li ma waxoon ak yéen mu ne war a faanaa ma yëkkati fooqakum seen kaw ak tuura doj wa man yàlla tabaraka wa taala ma waxoon ak banu israil ma indi leen téere tawraat ne leen jël leen ko ñu daal di lànk ne duñ ko jël man yàlla ma déjjati benn doj xam ngeen doj aljabal ak tuur jabalun wa huwa aljabal allazi naaja allahu taala alayhi musa alayhi salaam mooy montagne bi yàlla waxoon ak yonent yàlla musa yàlla jox leen tawraat ne leen jël leen ko ñu lànk yàlla déjjati jot déjjati doj wi ne leen acca jël leen li ma wax ah léeg-léeg doomu aadama benn kilifa ci biir këram daan ne kër gi daf leen nàngam yëf yi yéex mu jël yar ah ñépp daal di waaxu def lim def def lim santaane ñii it yàlla tabaraka wa taala jox leen tawraat ne leen jëfe leen li ma wax ñu lànk di yéexe yàlla déjjati jo doj wi ne leen jël leen acca xusu jël leen maa aataynaakum li ma leen indil bi quwatin ci kàttan allahu akbar bi quwatin bi jiddin wa hazmin wa azmin jël leen téere bi jël gu ànd ak cawarte jël gu ànd ak dog jël gu ànd ak pastif moo tax nit mënul jàng te ñett yi ànd ci nit mënul jàng nekk yambar nit mënul jàng te jiwul bi ñoo di jàng nit mënul jàng jàngu àndul ak cawarte xuzu ma aataynaakum bi quwa bi quwa ay bi jiddin wa hazmin wa azmin même téere alquran bii tey soo ko bëggoon mokkal nooy def foog nga ànd ak dogu foog nga ànd ak farlu foog nga ànd ak cawarte pour nga mokkal quran xam-xam ci boppam nit mënu ko am ci yaafuus nit mënu ko am ci tayal nit mënu ko am ci yambare nit mënu ko am ci ñàkk pastif koo gis tey mu am xam-xam rek boo ko ne waaw sëñ bi yow noo def bokkal téere yi mu ne allahu akbar daaw ma nelaw guddi benn daaw ma lekk ba suur daaw ma naan ba màndi daaw ma dem di waxtaani di waxtaani toog ci grand place yi di waxtaan xuzu ma aataynaakum bi quwa xam-xam ku ko bëgg fa nga jëfandikoo la force kattan ci dogu ci wéet ci nangoo xiif boroom xam-xam yi day wax ne ala la tanaalul ilmi illa bi sitta mu ne kenn du mun a am xam-xam lu dul ju- juróom benn mbir sa umbiika bi majmuiha an bayaanin mu ne dinaa la wax juróom benn yépp ci leeral ku bëgg am xam-xam mu ne fa nga def juróom benn mbir lan mooy bu njëkk muus ku bëgg am xam-xam da ngay muus ñaareel da ngay xër xirs muks da ngay sax beneen ah ah zaka un wa hirsun da ngay am ku la jàngal irsaadu oustaz tuulul umr da ngay jàng dund gi yëpp min al mahdi ila al lahdi soo ko defee nga am xam-xam waaye damaa bëgg jàng soo demee benn yoon dar su dootoo delluwaat doo am xam-xam loo jël doo ko réviser ah seen affaire yaa ngi may yodde loo jël doo ko réviser loolu du dem bëgg nelaw nelaw yu yàgg bëgg di waxtaani doo am xam-xam de ku bëgg am xam-xam da ngay nangoo wéet yàlla ne leen xusu jël leen maa la nga xam ne aataynaakum indil naa leen ko man maa leen ko jox muy xam-xam muy tawraat bi quwatin ci kàttan su ngeen ko jëlee wazkuru ma fiihi na ngeen jàng la ca nekk da ngeen ko réviser na ngeen ko jëfee wazkuru ma fiihi ay uzkuru ma tadammanahu lkitaab na ngeen jàng li nekk ci lettre bi ci téere bi allazi huwa tawraat te moom mooy tawraat na ngeen jàng atey xam ko jëfi ko téere bu yàlla wàcc lan moo tax yàlla wàcc jàngu est-ce que jàngu kese la déedéet des na tey alxuraan ñu ngi koy jàng mais fan la problème bi nekk mooy nangu ñoo àttee téere bi da ngay dégg ñu ne la non islam moom vraiment instant bi ñu toll kenn mënu ko te woo kon lan mooy objectif faayda yàlla joxe téere bi ba pare naan waskuru ma fiihi na ngeen jëfe jàng xam ak atte ak sariya yi luwaa yi laallakum ndax yéen tattaxuun ngeen mën a ragal yàlla téere bu yàlla mës a wàcce rek wala yàlla lu mu mës a santaane rek am na lu nekk ci ginnaaw bu ko nit ñi defee mooy lan mooy am taqwa ragal yàlla koor gi ñuy woor la moo tax yàlla sant ñu ko
suñu ragal laallakum tax kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun téere bi tawraat lu tax yàlla wàcce ko xuzu ma ataynakum bi quwa waskuru ma fihi laallakum tattaquun jël leen téere bi ngeen jëfe ko ngeen jàng li ci nekk ngeen xam ko lu tax mu ne laallakum tattaquun واذكروا وعد الله تعالى فيه ووعيده fàttaliku leen jàng leen li ci yàlla dige ci ay xéewal ak ay tëkkuwaate ay tër ay duma rajaan an taxsula lakum attaqwa fa tanju min alxusraan su ngeen jëfee li leen ci yàlla wax ci téere bi lan ngeen ci am mooy ngeen am ragal yàlla ngeen mucc ci safara ngeen texe ëllëg yowmal qiyaam ngeen dugg aljanna gis nga ndeke li mooy jubluwaay yàlla wàcce tawraat jël leen li leen yàlla indil xuzu ma aataynaakum bi quwwa jël leen gis nga te loolu kat yàlla ba mu leen koy jox contrat la yàlla siggante ak ñoom pacte moo tax mu ne wa is axaznaa misaaqakum fàttaliku leen ba ma siggante ak yéen pacte contrat wara faanaa ma yëkkati fawqakum seen kaw ak tuura doj wi bi yàlla yëkkatee doj bi parce que tawraat yàgg na fa jëfe leen ko ñu lànk lànk lànk lànk ba yàlla yëkkati doj wi ne leen acca wala ma daaneel ko seen kaw yéen ñëpp ngeen dee ñu doog koo jël commencé koo jëfe ñun dafa mel ne loolu moonu dal alxuraan baa ngi nii yàlla wàcce ko ñu lànk bañ koo jëfe tey bu yàlla yëkkati woon benn montagne wala yàlla yëkkati benn partie ci asamaan bi wala yàlla yëkkati géej gi ne aca woor leen ngeen naan gisuñu weer wi ku nekk fa doon ne man de woor naa wala jëfe leen alxuraan bi ñëpp jëfe ko li ëpp ci doomu aadama yi bala ñuy mën a def li yàlla santaane wala bala ñuy mën a def li kilifa santaane rek lan mooy am yar taxaw mais buñ bàyyee nii nit ñi nii gis nga te islaam a ngi ni kenn nangu koo àtte kenn kenn mais buñ yëkkati woon dara ne acca nga dégg ñëpp ndeysaan ñëpp nekk jullit borom bi mu ne waaye lii lépp li tax ma leen koy sant rek mooy pour laallakum tattaxuun gis ngeen baat bi laallakum tattaxuun bëri na ci alxuraan de te yàlla mbooleem jaamu yàlla yu mu santaane yépp li tax mu sant ñu ko mooy laallakum tattaqun li tax yàlla sant ñu jaamu jaamu yàlla mooy luñ ciy jële laallakum tattaqun ya ayuha nnas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum nga ibaada jaamu leen yàlla yéen nit ñi jaamu leen yàlla yàlla mi leen bind bind seen baay yi leen fi jiitu woon lu tax ñu lay jaamu mu ne ndax ngeen am ragal yàlla laallakum tattaqun tabaski lu tax yàlla santaane ko mooy pour ñu am taqwa lan yanaala allah luhumaha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu at taqwa minkum yàlla nee na soxlawuma yàpp bi soxlawuma deret ji waaye lan laa soxla ragal yàlla gi la poussé nga dem def ko aj màkk lu tax yàlla sant ñu ko fa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa gis nga ut leen yóbbal bu ngeen di dem ñu ne yóbbal gi lan la mu ne ragal yàlla même yére yi ñuy sol yàlla mu ne wa libaasu taqwa zalika xayr yére ragal yàlla moo gën waaye yére ngis sal yére puukare xam nga léegi yére puukare am na wala amul gisu leen yére puukare suñu jabar yi sax dañ koy def ngay gis fi ku sa jabar am doom mu ne damay solu ñetti yoon bi muy sol suba du nuroog bu muy sol midi bi muy sol midi du nuroog bi muy sol bi muy sol dernière minute bi nag boobu mooy yére puukare bu ngand ngand bi nag kii ko capp-cappal ko mu ñëw di direeku nag mel ne bànjooli te yàlla wan ne libaasu taqwa yére ragal yàlla moo gën yére bii nga sol su yére yi ci kaw rafetee te yow ragaloo yàlla ban njëriñ la am yonent bi saa salaam nee na nit ñi ki ci gën a yées mooy ki sol yére yonant te jikkoom nekk jikko firawna yére yi yére yonant la foo es ñu ne as bismillah bismillah kaay toog fekk jëf ji jëfi firawna la kon yére même yére ragal yàlla sax moom la tax yàlla sant ñu ñu sol yére yi beneen mooy ku rey nit nañ ko rey jëfandikoo luwaa bi lan lañ ciy jële walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaqun yàlla mu ne ku rey nit nañ ko rey bu ngeen ko regee bu ngeen ko defee rek da ngeen di dund walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab xoolal yàlla wallahi buñ jàngee alxuraan ñoo xam ne yàlla du nit te alxuraan dëgg la waxu yàlla la yàlla mu ne am ngeen dund su ngeen jëfee li ma indi da ngeen ciy jëlee dund yéen borom xel yi fi mu nekk ni àddina bi li fi am nii ku mu neex rey ku mu neex jam bu fekkoon ne l'islam mooy gouverner di ngeen toog ay at seen tali yi accident du ci am waxuma la ak nag jël jaasi di jam nit wala di gor nit tey agresseurs yi bu lu tax ñu am doole ah parce que buñ defee kenn du leen def dara wala bu ñu leen def dañ leen di yóbbu fële tëj leen ñuy entraîné ñu tegal leen télé ñuy lekk mbaxal ak dëxin di gën a ngande nga dégg kuy génne booy sama place bu ko kenn laal rak tak dem dikk maa ngi ñëw. bis xam ne dara du ko ci fekk xam ngeen ne agresseur lan mooy àtteem ci l'islam l'islam amul kaso yàgg naa leen ko wax l'islam amul kaso kaso la sujuuna fil islam islam amul kaso comme kaso yi am police xam nga lu tax loolu day yokk état bi budget bandi yi di lekk di naan ci amul lu ñu xeetu njëriñ ñaata kaso mu am Sénégal ñañ fa tëj ñëpp dañuy añ di réer di ndékki ñaata lañ kan moo yor kan mooy yor budget boobu yéen ñii nguur gi de ñun ñii ñoo ko yor ñun ñoo leen di dundal xool ñu ñuy sàcc ba pare ñu leen di dundal ñu ñuy rey ñu leen di dundal mais bu dee lislaam dangaa dagg nopp nit dañuy ñëw dagg sa nopp bàyyi la nga ñibbi terminé dangaa rey ñu rey la dangaa jam ñu jam la dangaa dóor ñu dóor la mais jël la di la denc fii nga rey nit ba pare ñu jël la denc la ban njëriñ la am ñaata nit nga gis ku rey ñu denc ko mu génnaar rey ñu ne mu génnaar rey ñaata pombiteer bu nëb ci biir saako su ngeen bëggee yeneen pombiteer yi mucc nu ngeen koy def lu tax ngeen sànni ko ah parce que dafa nëb su ngeen ko fi bàyyee day yàq yeneen yi waaw yàlla xool société bi daan ne kii kat nit ku nëb la nañ ko dindi sànni ko ñu ne non yow yàlla yow yow yàlla danga si nañ ko fi bàyyi yàlla mu ne bàyyi leen ko nu mu def bi ñu ko fi bàyyee yàq yeneen nit ñi yàlla nee na alaa yaalamu man xalaq wa huwa latif yàlla maa bind maa xam beneen da ngay feebar nga dem hôpital docteur bi xoola ne yow sa tànk bi foog ñu dagg ah pour nga dund nga ne ah mu ne sa tànk bi foog ñu dagg nga ne waaw da docteur docteur man li tax ma ñëw fi mooy pour wér rek comme suñ ko daggee ma wér agg leen ko yàlla xool benn waaye ne kii def feebar foog ñu dagg loxo bi ñu ne déedéet déedéet ah yow déedéet waaw yàlla yow tamit yàlla ne kii def feebar sàcc feebar la xam nga lu koy faj ñu jàpp waa ji ne tippit loxo bi bu ñu koy wér rek mu wér ki jabet ñu ne nañ dagg tànk bi mu wér yéen ngeen nangu ñu dagg tànk bi ci sàcc yàlla mu ne nañ dagg loxo ngeen bañ te yàlla nee na kii maa ko bind maa ko moom dafa feebar sàcc dafa feebar feebar sàcc kon nañ dagg loxo bi agresseur garabam xam ngeen lan la dañuy dagg loxo gauche bi ak tànk droite wala ñu dagg loxo droite bi ak tànk wala ñu génne ko dëkk bi nga defar bu ñu ko defoon ñaari yoon ñett nit ñi dinañ xëy fii di nangu alalu nit ñi par force bëccëg ah lu tax ñu bañ ko def dañu ne ñun ñoo ëpp yàlla yërmande te yàlla nee na man maa leen maa bind maa xam yàlla indil ñu loi yoo xam ne buñ ko àttewoo dañuy dund xala lu mu ci rek yaa ulil albaabi laallakum tattaquun yéen borom xel yi te ñi bañ yépp ñi bañ ñaan ku rey nit nañ ko rey ñoom ñuy rey fi mu nekk ni président de la république ku ko bëgg a rey bu ñu la jàppee nu lay def man mii ku ma bëgg a rey si ma suñ ko jàppee nu ñu koy def kenn du def dara lu tax ndax pas président de la république ëpp ma pouvoir moom ku ko bëgg a rey bu ñu ko jàppee rey yow mii ku la bëgg a rey bu la jàppee dañ naan koy attention ah tax nga koy rey lu la daan koy bàyyi bu ñibbi waaw ci islam nag président bi ak ki gën a tuuti ci xeet wi ñoo yem bis boo feree nit bu la yàqee dañ lay rey moo tax ñoom seen bopp la ñuy aar parce que gis nga président nuñ koy garder ñaata motard soo demee pale ñaata ñaata moo fa nekk ci sécurité ñun est ce que am nañ sécurité ñun fu ñu tudd ñu pes ñu nangu suñuy portable ak suñuy kalpeek suñuy montre kenn ci ñemul guddee àll moo tax ngeen góorgóorlu da ngeen war góorgóorlu Sénégal nekk dëkku lislaam nekk li ma jublu ci dëkk lislaam mooy ñuy àttewoo lislaam ñam nañ bu mboolem gouvernement yi ñam nañ leen mboolem parti yi ñam nañ leen dara baaxul dañuy nax rek dégg ci lislaam ñoon ci lislaam xam ngeen ne mbër yi duñ nekk duñu sonal kon ñii yëpp yóbbu nañ leen ñu bay waaw li lépp ñu wax ak yàlla nag fan ngeen mujj su ma topp te wallaytum wane ngeen ginnaaw min baadi zalika ginnaaw accord pacte bi ngeen signante woon ak yàlla yàlla wàccee leen tawraat ne leen jëfe leen atte
na ngeen luwaay su ma topp te wallaytum wane ngeen ginnaaw du mooyu rajatum amma iltazamtum alqiyaamu bihi min al amal delluwaat ngeen te la ngeen jëfandikoo démb ak barki démb delluwaat ngeen te aada yaag bidaaw yaag bidaa yaag sirk ya ak seeni baaxi maam yàlla wàccee ñu téere ne tuub leen jël leen téere bi jëfe ñu ne waaw yonent bi ñëw jàngale leen lu nekk nuñ koy defee yonent bi dem ah sunuy maam lii lañ nekkoon kenn ku nekk naan man sama maam lii laa fekkoon muy def inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadin ñun kat sunuy pap sunuy yaay lii lañ doon def kon ñun loolu la ñuy def ñu bàyyi li yàlla ak yeneen bi wax summa tawallaytum topp ngeen wane ginnaaw min baadi zalika ginnaaw lii yàlla mu ne walawla falawla fadlullahi bu loondu xéewalu yàlla aleykum ci yéen wa rahmatu ak yërmandeem la kuntum di ngeen nekk min alxaasirina ci way perte yi wallahi walawla fadlullahi taala alayhim annahu lam yuaajiluhum bil uquba bu fekkonte ne lu yàlla tabaraka wa taala waxoon ak ñoom ne man de yàlla sama mbugal yàkkamti wuma ko tey ji yàlla ala nañu ñun bëccëgu démb bi rek yàlla alakoon nañ ci douze millions sénégalais daanaka mën nga ne onze millions bi yëpp nekk ci caaxaan teen julli ñëpp di fo ñëpp fàtte yàlla lu dul ay bindeef yu ndaw ñëpp loolu ci biir kër yi seetaan làmm wala wala fadlullah moom bàyyi naa leen ba yombal suñu ko ñii dee ñu waxoon ak yàlla dañ ko bàyyee bu doon du xéewal bi yàlla wax ak ñoom ne mbugalam du gaaw a ñëw ah kon wallahi yàlla mu mbugal nañu ñu ngi fi mu nekk nii ñun ñu ngi def ay mbir yoo xam ne moo tax mooy yonent bi sa asalaam nee na yàlla bëgg daani rek mu dégg ay xale yu ndaw ndeysaan di jàng di jàng téeméer bi rek mu daal di yëkkatiwaan mbugal waaye xam ngeen ne Sénégal guddi yi nu toll ñu ngi ci mboq ay bàkkaar yoo xam ne ñu ngi ci sori yàlla sori goo xam ne lépp lu xeet yi ñëpp yi defoon démb yàlla mbugal leen ñun def nañ ko wala ñun doublé nañ ko sax ñun dem nañ ba foofu nag wala teg nañ terminer sans affaire yi dinañ ko dégg benn waaye bu ne boo boo dee yàlla tawal glace tawal doj boo dee yàlla tawal doj loolu ay waxu ceddo la jullit di wax loolu wala qad qaalu kalimatal kufr yàlla mu ne tabaraka wa taala bu doon du xéewalu yàlla tabaraka wa taala fadlullahi aleykum xéewal gum leen defal wa rahmatu ak yërëm gum leen yërëm yéen doomu aadama yi kon la kuntum di ngeen nekk Mina- xaasirina ci way peer wallahi yàlla def ñuy yërëm wa rahmatuhu yàlla nee na sama yërmande moo jiitu sama mer wa rahmati ah wasiat kullu shay'in ilma sama yërmande moo gën a yaatu lépp ci xam-xam yàlla yonent bi yàlla yonent yàlla Muhammad alayhi salaam dafa gis benn jigéen buy nàmpal doomam yonent bi laaj saxaaba yi ne ndaw si buñ ko ne woon jëlal sa doom yi sànni ko ci xalu safara yi ndax dina ko def ñu ne ko déedéet mu ne yàlla moo gën a yërëm doom ji ci yaayam kon yàlla bu lakkee doomu aadama doomu aadama dafa dafa dafa dafa dafa dafa ëppal dafa sës waaye yàlla bindul doomu aadama pour lakk waaye doomu aadama moo dëgg bopp
xataa yonent yàlla Muhammad kon yonent bi yàlla yónni yàlla dafa bind ci lan yërmande wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin ndeysaan ñu ngi nettali ci hadisu jibril di wane ne yàlla ni mu baaxee ni mu bëree yërmande benn waaye boo xam ne musul woon jaamu yàlla dañoo bay dee doom yi hadis buxaari yi
mu ne doom yi ban bàyyi laa ci yéen mu ne ko bàyyi ju baax lekk ndax mos- mos na manqué déedéet ndax mos ngeen xiif déedéet mos ngeen mar déedéet mos ngeen rafle déedéet ndax am na bàyyi bàyyi fu ma mën a wut ci yéen ñu ne ko déedéet
ne damaa bëgg bu ma deewee ngeen def sama ndénkaane sa ndénkaane papa lan la bu ma deewee ngeen dajal ay mbaam lakk ma ba ma nekk doomu taal ngeen jël benn partie bi ngeen sànni ko ci ngelaw li mu naaw beneen partie bi ngeen dugal ko ci géej gi yëngal ko mu seey ñu ne ko papa loolu nag mu ne damaa ragal dajeeg yàlla bëgguma dajeeg yàlla dama ko ragal waa ji daal di dee doom yi daal di koy lakk jël benn partie bi sànni ko ci ngelaw li mu naaw beneen partie bi yëngal ko ci géej gi mu seey ji dafa ci paan yóbbu ko ci géej gi yëngal ko moom tasaar yàlla ne waa ji kun fa yakunu ruuxu waa ji daal di misaal ci kanamu yàlla yàlla mu ne waa ji li nga def nag sax nga def mu ne yàlla dama laa ragal daje yow yàlla mu ne ko baal naa la dugal aljanna maanaam ragal nga dajeeg man rek comme ragal nga ma xam nga ma ba ragal ma ragal nga dajeeg man kon yàlla ku bëri yërmande la waaye nit ñi ñoo war a ut yërmande yàlla da koy uti doo toog naan yàlla ko bëri yërmande la comme ni ko nit ñi defee kenn fi mu nekk nii toogul naan yàlla ko bëri yërmande la damay jël dépasse lan ma ko def suñ ne yekk nañ añ bi kaay leen fi mu nekk nii bu ñu indi woon lekk lekk fii léegi ñu ne ñoo leen ñu ndog ñu teg ay borom ñu ne kaay ñu ndog nga ne non yàlla ko bëri yërmande la macha allah dinaa suur léegi nga dee kaay lekk nga ne non yàlla bëri na yërmande dinaa suur kaay naan yàlla bëri na yërmande ñetti fan ñeenti fan kaay ngay jékki-jékki ni kaay nga ni commencé doo wax yàlla bëri na yërmande da ngay noppi ñaareel bi ne ne kaay nga ciipatu ñett nga sukk ci bool bi lekk kon yërmande yàlla dañ koy sàkk yàlla mu ne bu doon sama xéewal ak sama yërmande la kuntum wallahi da ngeen nekk xaasireen way perte mbokk yi adduna bi tey bu fekkoon yërmande yàlla la ko yàlla di xoole adduna bi ah, yàlla jëlee na ko fi ñépp torox nañ borom bi ne wala qad giñ naa ci sama màggaay alimtum xam ngeen allazina gaa ñi nga xam ne i ata daw dañoo jalgati woon minkum ci yéen fi sabt ca samedi ga ñii dañ leen tere woon rëbbi samedi nappi samedi i ata daw fi sabt ay tajaawazu alxadd fi xaysu xurima alayhim assayd fiihi fasaadu ñu tere leen nëppi në- nappi samedi ñu dem nappi yàlla mu ne xam ngeen aaya bi yàlla naan walaqad alimtum alladina atadaw minkum fi sabti aaya bi li ci kaw lay dëgër li ci kaw la aaya bii di dëgëral lan la aaya bii dëgëral mooy yàlla nee na ah yéen kat fàttaliku leen damaa amoon ak yéen benn contrat ma wax leen jëfe leen sama téere ndax ngeen ragal yàlla ngeen lànk sànni téere ba su fekkoon du sama xéewal ak sama yërmande kon perte ngeen te yéen sax xam ngeen ni am na ñu leen fi jiitu woon ma tere woon leen nëppi samedi ñu dem nëppi ñooñu xam ngeen ko xam ngeen ko kon aaya bi lii ji ci kaw lay dëgëral dégg ngeen wax bi la dégg leen ko yàlla nee na leen jëfe leen sàngam def leen nàngam ñu lànk yàlla mbugal ñooñu ba pare yéen ngeen ñëw seen ginnaaw jàng loolu gis ko ngeen gis ne yàlla nee na ba mu neeñee def leen ñooñu lànk yàlla mbugal leen yéen ngeen ñëw yàlla bu la leen def leen lu ngeen war a def jëfe rek mais yéen ngeen ñëw ñu ne leen yéen ngeen ngeen naan ah waaw eh, yàlla ar mbokk yi yàlla mu ne walaqat wallahi giñ naa alimtum xam allazina ñi nga xam ne itadaw dañoo jalgati lan mooy jalgati baatu jalgati amoon nañ benn oustaz ndeysaan mu ne xoolal Sénégal yàlla mu ne wala taatadu bu leen jalgati ñoom ñu wut ay musóoru jalgati bu jalgati dàll jalgati xew fi fecc jalgati te yàlla nee na wala taatadu bu leen jalgati ñoom waxuma la ñu jalgati mais ñu utal ko ay yéen ñoo ko moom yow loo sol ni jalgati déggu leen loolu wala loolu xew xew na fi mu ne ñun ci musiba lan nekk jalgati te yàlla ne woon wala taatadu bu leen jalgati xam ngeen ña jalgati woon la leen dal wala qad wallahi alimtum xam ngeen jàng ngeen dégg ngeen wax nañ leen ay histoire ay doomu aadama yu fi passé woon ba ñu jalgatee la leen yàlla tere woon lan la leen yàlla def allazina ñi nga xam ne itadaw dañoo jalgati woon min ci yéen fi sabti ca samedi ga ah yàlla day tere ku ku génn samedi de sénégalais yi kañ la ñuy génn te ñii dañ leen tere woon génn samedi ñu génn samedi nañ xool après résultat bi ñii yàlla da leen a natt samedi bu jotee rek géej gi day fees dell ak génn wala dex gi day fees dell ak génn ñu lànk bañ a jaamu yàlla yàlla mu ne sax léegi fi kenn nappati samedi dimanche jën yi dañ ñëw lundi jën yi dañ ñëw mardi mercredi jeudi vendredi jën yi dañ ñëw samedi rek jën yi ñëw ba ci ba biti génn ci dex gi yolla génn ci géej gi ubbi seen caaxo ñu naan dañuy bronze wu di yël naaj ñu daal di xaaj ñetti kuréel ñenn ñi ne ñun de suñu yónni ko ñun yàlla moon tere ñun demuñ ñenn ñi sax ñoom ba ñu rombee ñenn ñi di waar ñeneen ñi naan leen ñun ngeen di waar ñi xam ne yàlla da leen nar alak ngeen ñun ñun duñ fi sax toog ñun dañu ñeneen ñi ñu ne xam nga lu ñuy def léegi ñun dañuy bàyyi ba samedi ñu dem jël jël jël fiile yi mbaal yi ñu wóoral ko jën yi ñëwee ba tefes gi ñu wóoral mbaal jën yi ci biir géej gi wala dex gi ñu bàyyi ko foofu léegi jën yi bu ñuy daw di ñëw bàyyi ba samedi ba jën yi ñëw ñu la ñu dugg seen i gaal gaal yi ay kilomètre yow mbaal yi wërale ko waaw dem ñibbi dimanche gaal yi fees dale génn parce que jën yi mënuñu wëcc jën yi yóbbu seen kër waaye lekk ñu ko def ñenn ñi sax ca biir géej ga wala dex ga foofu la yàlla ne leen fa lahum ma wax leen kunu qiradatan yéen ñëpp nekk leen ay golo yu torox ñu nekk ay golo ñun ñëpp ñu nekk ay golo am na ñu naan golo yi foofu la jógee déedéet ñee yàllaa leen soppi ay nit la ñu woon yàlla def leen ay golo fa qul naa lahum ma ne leen man yàlla kunu nekk leen xiradatan ay golo al xirda dat jamu xirdin xaywaanun maaruf masaxa allahu taala almutadina fi sabt ala nahwihi yàlla soppi na ña demoon nappi samedi yàlla def leen comme ay golo mais nekkul ne golo fa la cosaanoo non non yàlla def leen def ay golo ñu fekki fi golo ya yàlla bindoon moo tax ñu naan golo dafa nuróog nit am na ci golo yoo xam dañoo nuróog nit nit ña yàlla soppi woon golo la ndeysaan ñu ñibbi si seen kër yi ñoom ñoom nekk golo nga gis mootu da ngaa nekk golo kii de mbay la kii de Ousmane la Kumba nga ne waa kii de ndey ñoo ñoom ñu nekk ay golo waaw ku ne gis sa bopp te mënoo wax ndeysaan nga xam ne gis sa bopp la ñu mujj ñu mujj di naaw ci garab yi ñii mbokk yi ban bàkkaar la ñam ñaata bàkkaar la ñam benn bu leen nappi sax ñu nappi wala napp rek lañ leen tere de laa taatadu fi sabt bu leen nappi rek la leen yàlla bu leen nappi ñu lan lañ ñu wax ñu lan lañ ñu wax wala yi aka bëri laa taxarabu zina ah wala taakulu riba wala taakulu amwaal al yataama ay wala kee bëri ci alquran yëpp gars yi dañuy jalgati di dem te ñu benn dong lañ leen wax wala taatadu fi sabt bu leen jalgati samedi lan moo leen ci fekk ba ñu demee féttiirlu di jéem a yaay di jéem a yaay yàlla dëgër bopp te beneen mooy li gën a garaaw mooy yàlla tere la dara ngay jéem a ut système boo ko defee pour mu dagan ci yow comme mooy suñu système yi xam nga yàlla dafa tere riba nga gis gars yi ut yeneen yoon yu ñu jaar waaw yeneen yoon pour lan pour lekk riba yàlla tere sàngara di jaar yeneen yoon ut ay butéel yu liggéey ut sax koo xam ne sam waay moom mooy ut nu muy sottee butéel bi xam nga am na ci yenn baar yoo xam ne wala yenn place yoo xam ne ka fa dugg di servir baar sàngara si ni mu koy sottee moom doomu moom dañ ko koy jàng yooyu yëpp pour lan pour mbir mi daga xoolal ba ci ay lekk ba ci ay col bi yàlla naan nañ sol lu baax nga gis tey ñu indil nit ñi yëre yoo xam ne da ngay gis jigéen ji sol boo xam ne yaramam a ngi bit ruba kaasiyaatun fi dunya aariyaatun yawma alqiyaama waaw li yonent bi doon wax ma bokk na ci màndarga yawmal qiyaam sol yére ba pare sa yaram nekk ci biti lu koy waral mooy système yu doomu aadama yi di tëral ginnaaw bu leen yàlla tere ne leen def leen nangam ñu ne ah yàlla de daa tere lii waaye nag dañ jéem a wiiri koj duñ ko wiiri koj jéem a xool mbir mi nuñ koy defee ñuy xoolal biñ leen teree napp samedi luñ def dañu ne nañ dem samedi takk fiile yi ñibbi su ko defee dimanche ñu ñëw jël si ko su yàlla waxee ñu ne ko dimanche lañ napp napp ñu samedi xam nga ne loolu pexe la mooy pexe yi doomu aadama di tëral tey ci àddina bi yàlla wax li ñu ne noonu nañ jaar beneen côté waaw yàlla sàngara la waxoon sàngara nañ ko tuddee ricles champagne nañ ko tuddee flag nañ ko tuddee liñ doon wax sëriñ bi ñu ne ko yàlla de xamru la wax mu ne innamal xamru asnaafun maa bayna riclesin wa champagnein wa beer kulluha haram xamr xamr mooy lan mooy lépp luy muur xel yonent bi ne kullu muskirin xamrun lépp luy màndiloo sàngara wa kullu xamrin haram lépp luy màndiloo sàngara lépp loo xam ne yow boo ko naanee màndi sàngara la ci yow warootoo ko naan bàyyil même bu dee garab xam ngeen am na ci comprimé yoo xam ne day màndiloo ay façon la drogue am na bu ñuy fóon am na bu ñuy pikiiru am na bu ñuy diw am na bu ñuy tux am na bu ñuy naan bi ñuy tux nu mu tudd yàmba bi ñuy naan sàngara ah bi ñuy fóon héroïne benn baaxut yépp sàngara la dara baaxut léegi nag bu ñu nee yàlla araamal na sàngara nga ne noo yàlla dina bu kenn naan man naanuma damaa fóon maa ginze wala dama dama koo tux yàlla araamul tuxan naan la wax gis nga yaa ngi indi ay pexe te xam nga ne yow li ngay def nii lii lee la lay jural kon loolu baaxul ko mooy si ndig borom bi mu ne tabaraka wa taala ba ñu demee nappi samedi ñoom ñëpp ñu bëgg a ñibbi nag wa qulnaa lahum ma wax leen kuunu nekk leen xiradatan ay golo ñoom ñëpp ñu def leen ay golo ñëpp yàlla soppi leen ndeysaan def leen ay mbaam xuux ay ay golo am na beneen yoo xam ne daf leen def ay golo ak ay mbaam xuux kuunu nekk leen xiratan golo xaashiina yu torox yàlla mu ne fa jaalnaaha def naa loola lan mbugal ma nakaalan lima bayna yadayha allahu akbar def naa xaasiin ay mubidina anil xayri zalina muhaaniin yàlla nee na toroxal naa leen soril naa leen yiw ba pare toroxal leen nakaalan uqubatan shadid yàlla nee na def naa mbugal ma fa jaalnaaha nakaalan mu nekk mbugal mu tar tamnau man raaha aw amilaha aw alimaha man faala man kaana sabiqan sababan fihi yàlla mu ne def naa mbir mi mu nekk dars tam na man raa day tere képp ku gis lii ah ñii kat yàlla dane la woon bu leen nappi samedi ñu nappi samedi ñu def leen ay golo kon man buñ ma neexul baali samedi lan laa war a def bul dem cosaan samedi bul dem yëngu leen samedi bul dem biddéew ba samedi bul dem reve samedi kon bu la ko yàlla waxee loo war a def nga dem wala nga bañ a dem nga bañ a dem ndax yàlla nee na def naa mbugal mi fa jaalnaaha nakaalan def naa ko muy mbugal moo xam ne mbugal mu dëgër la mu tar li maa bayna yadayha ñi mu nekk seen kanam ñu jàng ci waaroo ci wa maa xalfaha ak ni mu nekk seen ginnaaw yi nga xam ne ñëwaguñu suñ ñëwee ñu jàng téere bi ñu gis ne yàlla lu mu tere ku ko def ne yàlla tuma woowoon ñu njëkk ñi dina la tumaa noonu waaye yàlla def na mbugal mi mu nekk mawizatan waar gis ngeen lil muttaqina ñeel ñi ragal yàlla ku ragal yàlla day waaru chaque jour ca li xewoon démb ñoom Moussa yàllaa leen yónni woon ñu dajeeg buur bi tudd Firawna Firawna féttéeru nu ko yàlla def mbugal mu ne inna fi zalika la ibratan liman yaxsha ñii yàllaa leen noon dara nappi samedi ñu dem yàlla def leen ay golo kon ñun tamit bu ñu yàlla teree ñu lànk fa yàlla jaaroon ak ñii rek day jaar ak ñun gis ngeen lii yàlla nee na def naa ko muy njàngale def naa ko muy lu ñu war a tiire ay leçon mari leçon boo jàng rek am na loo ci war a jële loo jàng rek am na loo ci war a jële wala loo gis rek am na loo ci war a jële loo fekke rek am na loo ci war a jële waaye tey ndeysaan ñun dañuy fekke waxuma la fekke mais dañuy jàng waxuma la jàng mais dañuy xam ñu lànk sànni ko fële daane garaawul non nañ dem rek garaawul quoi nañ dem benn waay ndeysaan bu mun a waxtaan nee na dafa am jën yi nee na buuru jën yi dafa dajale jën yi di leen waat buuru jën yi mu ne na ngeen moytu ni ku de àddina bii ñuy dund am na beneen àdduna boo xam ne dafa wuteeg sunu àdduna bii de foofu benn benn mbindeef bu tudd doomu aadama moo fa ne aka moo ñu bañ ñun rek lay bañ a gis te gis na ku mu jàpp ci ñun jëli na ko déet balaa ngay dem ci ku mu jàpp ci ñun moom nu mel ne daa am taxawaay am ñaari bët am kawar am nopp am bakkan am gémmiñ am sikkim am ñaari loxo am ñaari tànk ay kum jàpp mal xiyaam taxaw nee na jën yu wetti jën surtout jën yu ndaw yi ki day sóob rek benn jën bi ne ko doomu aadama boobu bu ñuy jàpp ñun lu muy lu muy yor mu ne day yor benn buum buum nga ca suuf dafa am lu ñuy tuddee maam meet lu fay nekk day mel ne dalay may lekk nga defe ne dalay may fekk mayu la dalaa bëgg a jàpp jën yi daa tasaaroo ci biir géej di dem ba càgg gi seen meet am ñoo xam dañuy ñëw xool ne ah lii la ñu suñu sëriñ ba doon wax de daal dem kenn ñëw ne moom dañ sóob dañoo rek daal ne crasse affaire yëf yi jàpp ne ko koroj kort
te waa ji waxoon na leen ne bu la jàppee buum la ci- su lay xëcc moom ci buum la da ngay topp buum bi topp buum bi topp buum bi bu buum bi jeexee nga gis bant bu bunt jeexee bu bant bi jeex nga gis waa ji taxaw xulli lay bët lu mu lay njëkk a def bu la jàppee da lay dóor ci suuf bu la dóoree ci suuf mu ne day jël paaka bi dindi say caaxoñ mu ne mu waas la ba nga set mu dagg sa genn gi dagg sa ñaari xel yi mu ne bàyyi wu la de ndax suba da lay def ay tere tere mu ne bàyyi wu la de mu ne day tàngal diwlin ba mu tàng ne la cas ci wiis benn jël ba buum gi ñu koy xëcc di ko xëcc di ko xëcc mu ne tëll gis nit rek mu ne wuy ay wuu kii lañ ma waxoon moom la mais c'est trop tard mu ne waa ji jàpp ko rek ni ku tëll ci suuf mu sedd koy waa jël jaas yi ne taf taf gën na caaxoñ yi dagg genn yi dagg eli as léegi est-ce que mën naa réccu lu ko dugal boobu dëgër bopp tamit yàlla moo wax lim nu wax nan ko gëm xam ne yàlla lim waxoon démb xeet yu jëkk yee ba ñu ko defee yàlla da leen a ndulli yéen bu ñu ko defee yàlla da lay ndulli gis nga moo tax jaalnaaha def naa ko nakaalan muy mbugal li ma bay na yadayha ñamu nekk ci seen kanam li ma bay na yaday al al uquba min annaas wa liman taati baadahum yàlla def na ko ñaar mooy ñi dem jànge nañ ñu war a tiir leçon loolu moo tax ñu ne histoire lay jëriñ histoire la lay jëriñ mooy rabtul maadi min al xaadir da ngay jël démb yeew ko ci tey wal xaadir lil mustaqbal nga jël tey pour yeew ko ci suba ñun dañu war a jàng ci li passé xoolal am na fi benn benn loi bu ñu doon woote le 23 juin pourtant loi boobu am na fi benn sëriñ bu fi waxoon ci jamono président de la république bu ñu koy indil waa assemblée bu ñu koy indil bu ñu leen indilee benn loi nañ ko seet wala kañ la ko wax 97 92 92 la ko waxoon ñun ci ban année lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko defaat ñun ñaataan la léegi li may laaj est-ce que assemblée bi jàng nañ ci góor yoo xoon jànguñ ci buñ ci jàngoon kon lii du leen dal chaque jour nit ñi dañu war a jàng ci lu xew beneen bi mooy nguur gii jànguñu ci liñ bi passé ñi ñu fi remplacé jànguñ ci ñoom jànguñ ci buñ ci jàngoon instant bii nii li leen dal du leen dal nit day jàng chaque jour ci ay xew-xew yu xew ci àdduna benn waay jaar na ci yoon bi ginnaaw timis ñu wulli ko nangu dàllam simi tubé nangu portable am jël yëpp mu ñibbee yaramu ne mu dajeeg yow ne la bul jaar yoon bi de boo guddee bul jaar yoon nga guddee ñëw taxaw naan non waa ji seer na quoi nga bonde jaar lu la dal ko def doomu aadama day jàng ci li passé di ko gam-gamle ak dundam di jël ci li tey di préparer suba loolu muy dund mais ñun buñ yaakaaree ne misaal yi yàlla di joxe ci alxuraan te misaal yi yàlla di joxe yëpp su paree day wax kéemtaan la la ayatin li ulil albaab ah inna fi zalika la ibratan liman yaxsha wala fii lan la wax aaya bi muy jeex mu ne wa mawizatan lil muttaqin lii def naa ko kuy muy waar pour ki ragal yàlla xam ne bu ko yàlla teree dafa war a bàyyi wa mawizatan lil muttaqin ku ragal yàlla bu la yàlla teree da ngaa war a bàyyi mbokk yi ñet ñeenti aaya yi liñ ciy jëlee mooy ñeenti mbir bu njëkk mooy wujubul wafa bil ahd wal misaq respecter rendez-vous dafa war wujub lañ wax wujub ban aaya moo ko jàngale wa is axasna misaqakum wa rafana fawqakum tuur moo jàngale ne wujubul wafa bil uhud wal mawathiq nit lu mu waxanteeg yàlla dafa war def te ñun dafa am lu ñu waxante woon ak yàlla ñaareel mooy yajibu axzu ahkaami shar'i bi hazmin jël atte lislaam yi luwaa yi yàlla santaane jëfe ko jël ko dafa war axzu ahkaami shar tey mu ngi nii du ñem rek ci jël ko waaye wa zikriha ak di ko jëfe ak di ko tudd wa adami nisyaaniha ñu bañ koo fàtte wala ñu koy fàtte fàttelu aw tanaasiha fàtte ak di fàtte fàttelu jullit du jéem a fàtte fàttelu santaane yàlla wala mu koy fàtte déedéet yàlla wax na ci alquran doomu aadama ëllëg bu ko yàlla di jël di ko dugal safara fàtte woon sama alxuraan bi wa kazalika al yawma tunsa te dañ lay fàtte jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne ñii yàlla di dugal safara tey nasullaha fansahum anfusahum dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte loolal seen alxuraan bi yàlla moo ñu ko wàcceel pour ñu jëfe ko war ñu fàtte luwaay yi wala ñu koy fàtte fàtte semaine bi passé dañoo woo ci miraas biñ demee ñu calculer doom yi ñu ne doom bu nekk nangam lay am yaakaar ne pare nañ rek ci biir famille am ko yëkkati loxo daal ne am na doom bu des de ñu ah ñëpp xoolante ndeke am na ñu ko xam ñu xoolante ñu ne ah lu tax doom dugalu leen ko ci ne du doomu yoon ah doomu yoon ñu ne waaw benn waaye ne du doon imaam bi ne déedéet day doon kenn du ma indi miraas moo xam ne dañ may yóbbu tribunal dama koy jox wàlla ma ñaari soxna yi ñu ne ah kenn aaw bi mu ne ah yàlla de bañ ñu woowee finance ñu laaj carte d'identité yi moom ñëwoon na joxe na carte d'identité am fayoon nañ ko ci xaalis imam bi nag voilà jox leen ko wàllam laa wax ci sariya lan la sariya wax ci goow doom jooju du doon gis nga dañ koo doonuloo parce que Sénégal attewuñu l'islam ñu ne imam bi ne Sénégal état laïque la du état diine état laïque état laïque ba pare ngay miraas ci l'islam kon kay waroon yoon miraas bi sax daama dañ ne lay loolu moo grave Sénégal dañ naan état lay la ba pare jël l'islam bu ñett l'islam di ko yóbbu di ko di ko fekkaloo laïcité bi fal force miraas kan moo ko jàngale du yàlla du yàlla moo séddale miraas yàlla séddale ba pare ne diw bokkul ñu ne non ci la bokk yàlla ci la bokk de ndax kii gërëwul za za def ñuy kere boole ci diw la génn foog ñu boole ko ci yàlla mu ne bokku ci ñu ne ko non kon saa day mer kon saa day jël yatam dóor ma loolu la ñuy def de nit ñi wax wax imam bi ne man dañ may woo di ma yóbbu tribunal ndax kii bu ñu ko joxul wàllam mu woo ma kon jox leen ko wàllam gars yi daal di koy bind na gis ngeen noonu ñuy def ci lii noonu la ñuy def ci mboolem àtte yi yàlla day wax ñu lànk bañ ko def ñu nekk ci lu nu neex nekk ci lu nu neex ba dara am ñu ne léegi lu yàlla wax man sekk damaa bëggoon benn xale bu jigéen ma dem seen kër ma ñaan ko papam papam bañ ma ñaan ko yaayam yaayam bañ ma dem ci ni yaayam mu bañ léegi nag ma biir léegi lu islaam islaam ci biiral naa ko léegi may laaj léegi nag ndax man damay am bàkkaar ñaan nga ko may mayuñu la doo dem seeti keneen moom rek moo fi jigéen nga def li nga wax dafa bari naan léegi damay laaj ndax man dina am bàkkaar wala papa bi yaa ñoo war a yenu bàkkaar ndax ñoo ma ko bañ a may mooy le médecin après la mort diine diine mooy luñ la tere nga bañ ko def mais def ko ba pare naan lu ciy xew bépp mbir bu ñu yàlla tere dañ ko war a bàyyi ñaareel bi mooy ci njàngale yi jële ci ay mooy jëfe téere yàlla bañ ko fàtte wala di ko fàtte fàtte ñetteel mooy laa tatimu taqwa li abdin illa ida axasa al ahkam alsharci bi hazmin wa azmin julli doo mën a am ragal yàlla lu dul da ngaa jëfe charia yàlla ci dogu ak pastif bi hazmin wa azmin charia yàlla doo ko mën a jëfe duñu ko mën a jëfe lu dul duñu mën a am taqwa lu dul dañoo jëfe charia yàlla ndax jëfe charia mooy la allakum tattaqun mooy pour ngeen am lan moo tax ngeen am taqwa mooy ibada lan ngeen amaa taqwa ngeen def sawm lan ngeen tax ngeen am taqwa mooy li yàlla wax aaya yëpp lan lañ wax aaya yi doon jàng fi sànq fan la aaya yëpp yi taqwa léegi nag buñ jëfewul aaya fu ngeen yàlla mu ne julli day indi dina am taxawa koor laa la kum taxawul du léegi nit ñaa ngi nii fu sa portable woddee léegi ku woor koor ko danaan sama koor gi tey yàlla nangu na ko waaye yow portable cinq cent quatre-vingt xaw ma dix la dix la koor xam nga ne faroo ko fay fay léegi borom woote nee ne gars yi sama koor gi dafa neex portable cinq cent dix la for faroo ko ko sàcc nga fol carte nit adresse am mi ngi ci carte daan ni numéro téléphone nga dindi xaalis bi teg fa bagage ba pare daan tey tey sama koor gi yàlla nangu na ko parce que yàlla may na ma ndogu loolu may ndogu la jëfe sariya mooy tax la allah mooy ñeenteel mooy xurmatul ihtiyaali li ibaha al muharram wa suui aqibatil muxtaaliina al muctadiin mbokk yi ci imaam ahmad mu ne laa tartakibu martakabatil yahud falaa tastaxillu mahaarima allahi
imaam ahmad nee na hadis abu hurayra yonent yàlla muhammad salaa sallam nee na bu leen def bàkkaari yahuud yi doon def bu leen daganal li yàlla araamal bu leen def bàkkaar yi yahuud yi doon def tey ñun xeetu lislaam lépp lu xeet yi njëkk yi defoon ñun def nañ lu ko yonent bi wax na sallallahu alayhi wa sallam la tattabiuna la tattabiunna sunana man kaana qablakum sibran wa ziraan bi zira sibran bi sibr wa ziraan bi zira mu ne law daxalu xujurata dabbin ndeysaan yonent bi nee na maa ngi giñ ci màggaay yàlla di ngeen topp yoonu gaa yi leen fi jiitu woon tànk ak tànk mbagg ak mbagg mu ne bu ñooñu doxoo duggoon ci paxi mbëtt sax yéen di ngeen fa dugg pour toppandoole dama leen di laaj di ngeen topp ci néegu yàlla ngeen nekk yor téere yàlla jublu penku jublu ci jàkka yàlla lan ngeen gis tey fii ci Sénégal lu yahut ak nasaraan defoon te ñun defuñu ko wax leen ma ko yéen laay xaar de balaa may continuer bal ñun sax def nañ lu ñooñu deful raw nañ ñooñu li li xale bu góor bi defoon jàpp papaam dugal ci oto dem ba ci àll ba àll sànni paa bi daal di koy bule mu ne ko def nga lu ma deful woon ma sànni woon sama papa mais bule wu ma ko ñun nag ñun def nañ sax lu gars yi deful woon démb ñun def nañ ko waaw ñun def nañ ko allahu akbar te ñun ay jullit lañ lépp lu yëxut ak nasaraan defoon ci ay riwaaya yoo xam ne yonent bi moo ko def nee na di nga gis nit ku jàpp yaayam di sëy ak moom wallahi allahu akbar tey def nañ ko ngay gis xale bu góor bu drogué fameem sëy ak ñëpp nga gis ku rey papaam nga gis ku rey yaayam ñaata yoon ci jugement yi ngeen dégg ñu ne kii dafa rey papaam papaam la yenu ba ci kaw dóor ko ci suuf doon dóor ko jaasi ñaata maadallah kon dafa araam ñuy jaar di daganal li yàlla araamal lu yàlla araamal ab jullit dafa war a moytandiku alkande weesul yàlla araamal mbir nga daganal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waxoon na ne la yakunanna min ummati aqwaman yastaxiluuna alxira walxariir walxamr walmaazif la yakunanna la wax dina nekk ci sama xeet dina nekk ci sama xeet ay nit ñoo xam ne danañ daganal njaaloo njaaloo dafa araamoon wala araamul dafa araam tey dañuy may këyit jigéen ñi ne leen njaaloo leen wala loolu du du amul Sénégal duñ fi may jigéen këyit ne ko demal nga jaay sa bopp demal nga njaaloo yàlla moo ko terewoon mais man gouvernement bi maa la ko may dagan na demal nga njaaloo yàlla na gouverner asamaan ñun ñooy gouverner suuf ñun laa ilaha illa allah nguur yàlla na ko yemale asamaan Sénégal bokk ci jël jullit yi Fatima Khadija Umu Kalsum Zeynab ñooñu yàlla noonu bu leen njaaloo ñu ne leen dem leen ngeen jaaloo am ngeen carte bu police ñëwee génneel carte bi rek mu tóoj ne la teyaa rek ndaw si loolu rek la de bu police dàqee guddi du daw day taxaw lan la ñu ne ko sa carte mu ne traf traf posat bi génne police bi tóoj ko yàgg ci yoon wi wax na dëgg de wax na dëgg mu ci yoon wi waaye ban yoon la yoonu jahannam kooku kon li yàlla araamal ñu koy daganal fii daa bari sàngara benn la ci tey boo ubbee baar fii amoo këyit lu ñuy tuddee baar bi kalandoo mooy la mooy lu amul këyit mais boo lijjantee këyit yi ba mu baax la ñuy wax buñ fi reyee nii sax da ngay dégg borom baar bi mu ne xoolal man sama këyit laa yoram beneen ginnaaw njaaloo sàngara yàlla araamul sàngara comme ni mu araamalee njaale njaaloo ni mu waxee wala taqrabu zina noonu la waxee ya ayuha allazina amanu innama alxamru walmaysir wal ansaab wal azlam rijsun Sénégal dañuy ñëw léegi ne la bismillah waxuma la ñu ubbi baar mais am na am na usine buy defar sànq ñu am usine bi ñu am usine bi ci biir dëkk léegi sax waxuma la dara mais mbuus cent franc am na mbuus sàngara cent franc ñi di naan yàlla waxoon araam na kon yonent bi waxoon na ne dinañ daganal lu araam daganal njaaloo daganal nañ sàngara daganal nañ musique daganal nañ xërëm xërëm yoon bi saa salaam fekk na ñetti téeméeri xërëm ak fukk ak ñett ci kaaba gi mu daaneel lépp ñun dañuy def ngan di maami xërëm sunu saal. dépasse suba laa soxla dépasse suba laa soxla dépasse suba laa soxla ñu ne boo ko waxee juróom-ñaari yoon da ngay am dépasse ci biir saal yi ngay fekk xërëm yi ñu teg leen xërëm ci biir saal yi te yàlla waxoon na Ibrahima waxoon dégg nga jàngoon ngeen Ibrahima doon ñaan yàlla naan ko wa junnub nii wa baniya an naabudul asnaam lu tax Ibrahima doon wax loolu mu ne rabbi innahunna adalna kasiran min annaas yow yàlla yàlla nag mu musal xërëm yi ñu ne yow lu tax Ibrahima mu ne ndax xërëm yi dañoo réeral ñu bëree bëree bëree bëree lan mooy xërëm xërëm mooy lan lépp loo yaakaar ne daf lay dàqal lor mu lay indil njëriñ lu dul yàlla xërëm wala képp koo yaakaar ne képp koo yaakaar ne képp koo jaamu ku dul yàlla xërëm attaaxut xam si juróom lañ principal yi soo demee ci kitaabu tawhid ñu jàngal la nga war koo xam war koo bàyyi jullit du jaamu xërëm jullit du daganal lu yàlla araamal jullit ci moom lu yàlla araamal mooy lu araam lu yàlla daganal mooy lu dagan ci lekk noonu lañ ko defee fekk lekk yoo xam ne yàlla mu ne bu leen ko lekk ñu lekk ci naan noonu la amee ci sol noonu la amee yàlla est-ce que waxul jigéen bu mu sol lu xat bu mu sol lu yaraax bu mu sol lu gàtt lan moo am Sénégal waxatuma la sax léegi sollu gàtt waxatuma la sollu xat waxatuma la sollu yaraat mais Sénégal ci boppam jigéen ñi solo ndax liñ naan awra awra tey Sénégal benn awra dong lañ ci nëbbu benn wala wala d'accord leen benn awra lañ fi nëbbu tey benn ay ween mu ngi ci biti jumbax mu ngi ci biti biir bi mu ngi ci biti xottitaat yi mi ngi ci biti pooj yi mi ngi ci biti oom yaa ngi ci biti yeel yaa ngi ci biti tànk yaa ngi ci biti kanam yaa ngi ci biti man moo des benn lañ ci nëbb benn ci réew moo xam ne nee nañ ñëpp ay jullit lañ réew moo xam ne dañuy tiitaroo ay sëriñ diw fii la tëdd fii yàlla lu baax rek la fiy def diw fii la tëdd fii jàmm rek diw fii la tëdd ndax diw ku ànd ak diw ñu ànd ku ànd ak diw dina def saa su ne est ce que ñuy def saa su ne dañu ànd ak sëriñ dañu ànd ak El Hadj Malick dañu ànd ak El Hadj Omar Foutiou ñoom la ñu àndal loolu musiba da ngay gis xale bu jigéen bu muuru ñu ne yéen da ngeen a contre sëriñ yi kon ñen ñoo ànd ak sëriñ yi borom jumba xaaw ñi check down ah loolu la loolu lañ bëgg a wax de gis ku muur kaj te lu gën a doy waar mooy sànni sànni nga gis am na mbokk yoo xam ne sax li ñu sol tout noir mu ngi seen kanam sol gaan nga gis ñu romb yi mais mais mais mais nga gis ku ku ku def jumba aw romb la rek jëf waay mais mais mais booy xoolal xale mais non kële ñu koy xas kii ah booy kaay toog fii et maa koy paasala kële romb la kële ñëw nga aus bila michel rajim na jàll na jàll pusal pusal voilà voilà fii jàmm du jàmm dañuy font rek lu baax lañ bañ sénégalais yi lu baax lañ bañ lu bon lañ bëgg lu baax day gis ku baax ñu sànni ko ci xaj ku bon ñu koy takkal ay garaat di ko may ay kër di ko may oto di ko fóon di ko raay di ko mag yi si ndax yi ngeen di gis ñuy may fi ay oto yëpp kenn baaxu ci kan kan fan ngeen fi mos a gis ku wàcc alxuraan ñu may la oto wax leen ma ko ban ban dëkk la ci Sénégal yéen ñi nekk biir yàq ci wax leen ma benn dëkk bu ngeen gis ku wàcc alxuraan ñu jëndal la oto wax leen ma ko ban kër la mais gis ngeen fi ku génne kaset ñu may la oto ku mën a basket ñu jëndal la oto may la kër ku mën football ñu may la oto may la kër wala ah ba pare ñu ne ñu ñu ñu ñu ne ñu ngi ci jàmm.
insha allah mbokk yi fi la ñuy yem ba suba ak jàmm
na yàlla ni bàkkaar